أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Kun Fayakoun TV ñu ngi di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu seen mbokk Cheikh Ibra Kun Fayakoun TV moo leen di siyaare bu baax di ñëwaat ak yen ci wàllu juboole ay nit ci wàllu jëkkër jabar surtout ci wàllu nasaraan nga xam nene ne tubaab la mu nga bëgg a nekk ak moom si wàllu liggéey wala tubaab bi nekk sa soxna bu nga bëgg ko tasxiir bam ñëw say loxo lii nag moom la naan nopp soixante-douze heures looy li ëllooy euh, xàññar la nga ñëw nii teg ko si kaw taal bi gis nga li ko composé mooy turu yàlla boobu ñu naan wëdduudu gis nga ñaari waaw yi fi la secret bi di dugg ndax boo xoolee wëdduudu bi xaatim bi yépp foo xool un plus cinq muy six plus quatorze waxaabu moo la jox vingt muy waxaabu muy waduudu boo xoolee fii yëpp moom la léegi nag lim mi ngi koy sikkar lim boobu moo am doole waaye boo ko tegee ci taal bi nii ci oloy xànjar bi nga xam ne ne mi ngi bax muy danga nga bëgg tubaab bi topp sa ginnaaw lu mu yoru jox la ko wala da bëgg soixante-douze heures la nopp soixante-douze heures tasxiir boo xam ne képp koo ko def ma wuyu si la si 72 heures muy diggante jabar ak jëkkër muy diggante patron ak apprenti muy diggante ñaar ñoo xam ne dañuy liggéey wala diggante ñaar ñoo xam ne dañoo bëgg a ànd wala ñaar ñoo xam ne na ànd woon léegi nag ñu bëgg a àndaat nga bëgg leen a boole ban àndaat doo ko bind si kayit doo ko bind si dara ëllooy xànjar ngay wut ndax dafa am sikkar boo paree da ngay jël sa kurus di ko sikkar moo tax lim bi ndax lim bi tey jii boo jëfee fii toujours fii waaw gu njëkk gii ah, kii bi moo fi nekk madlub bi bii ni taalib bi moom moo fiy nekk nañ ci bàyyi xel bu baax bi madlub bi bii taalib bi ñaari waaw yi boo paree nga tëj ko eh, nan bàyyiwaat xaatim xaatim yi eh, wàllu tafsir xaatimu wàllu tafsir képp ku koy bind bul di sol mbaxana surtout booy teg si taal ndax bu fekkee tey si taal bi la nii taal bi dafa war di tàng di bax nga yor sa kurus di si kar alwadoodu alwadoodu alwadoodu alwadoodu alwadoodu huit mille neuf cent huit mille neuf cent nga koy si kar boo paree génnee sarax bi saraxe ko koo bëgg mu topp sa ginnaaw ki nga fi dugal laa wax 72 heures ñaari fan mu toppaat sa ginnaaw loo ko laaj mu jox la ko loo ko def loo mu dex la ko nopp dëgg danga koy man xam suur bi nga koy liggéey par suur la nag lu da ngay tëb tëb rek liggéey ko benn suur dafa am suur buñ koy liggéey dàq ko ci biddiw incha allah di leen jégalu bu baax soxla suñu numéro mi ngi noonu ci suuf boo ko jëlee rek boo nu ci woowee incha allah.